audition wu soxna Aïda fii ci kër gi par la li fa la ensuite pour éviter ay débordement c'est une très bonne chose ñun ñu ànd ci malheureusement mu am quiproquo euh, léegi dañuy obligé euh, dem gendarmerie ndax ndax waa gendarmerie ñoo leen woo wala yéen bëgg demal seen bopp non non non bëgguñu demal seen bopp xam nga aussi mhm. bu ñuy def genèse affaire bi il faut ñu rendre euh, hommage à soxna si. parce que mbir moom mooy génn moom d' accord. waaw maa maa pardon si waaxu purke rek parce que ne dem ca

kii sëriñ. dura, dura. xoolal ñun lañ jël. MPS. Mine.